auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu taala wa sallam euh, tokor me an simnanga paaxa paaxa paax même si andame président fe moom jaɓkinum to jaɓkinum bo muk euh, monsieur le ministre donc je vous salue par rapport donc autant c'est un peu compliqué mais monsieur le ministre mais yéen lan moo tax ngeen nekk champion du njuuj njaaj yéen bu ngeen xëyee ndekkee njuuj njaaj añee njuuj njaaj ngontu euh, njogonaloo njuuj njaaj reere njuuj njaaj monsieur le ministre man commission finance ministre ministre des euh, finances j'étais le plus assidu poser samay questions xool ci document amul benn réponse boo réponse. ne jox ngeen ma sama tour sax nekku fa kon ku xool document bi nga xam man dama absenté won ci commission bi regardez à la page 8 la page 10 la page 16 la page 23 ay x ngeen def ci député nga xam ñom ñofu doon poser ay questions mais ñun ay député lañ au moins la sacralité donc de cette institution bu ngeen xamul suñu tour cette législatif mu ngi

donc qui est un montant donc de 200 millions de dollars fa ngeen dugal Birkilane Mabo Touba Saloum Dañu bëgg xam ban entreprise mo gagné chantier bi kañ la ñuy commencé liggéey bi parce que liguey yi ngeen commencé ci ca Rara ba arrêté ngeen ko ba paré yeneen liguey mu ngi wara commencer population ñi ñu ngi xaar kañ la ñuy commencé liggéey boobu ak ban entreprise mo moko ko Euh, monsieur le ministre ma ñëw ci euh, benen route moy la route Kaffrine Nguy Diamafara Wanar, Touba Saloum Bobu aussi ñu ngi leen di laaj fa ngeen ci toll ak lan ngeen ci xalaat la route Kaffrine Mbëlëb Mabo ñu ngi leen ci xalaat. la route Mbirkilaan Touba Mbella Mbos Ñiibi ñu ngi leen ciy xaar la route Kër Mbuki Touba Xadama Genge Neew Bak sambajoor Joor ñu ngi leen ci xaar la route Kër Mbuki Cikkat Lat Menge ñu ngi leen ci xaar euh, euh, croisement la euh, Thiawando ñu ngi leen ci xaar la continuité de la route Jaamal Kër Ali Bassine ñu ngi leen ci xaar la gare routière de Mabo monsieur le ministre Mabo dafa nekk loo xam ne centre la ci département Birkelane Maabo mooy relier le département de Kaffrine le département de Nioro le département de Kaolack le département de Birkelane en un donc Maabo dañ ko war a mun a désenclaver defar ko ba mu baax parce que Maabo day représenter lu baax a baax baax a baax frontière la entre le département de Birkelane ak le département donc de Nioro loolu dañ cee war a mun a taxaw bu baax a baax a baax euh, monsieur le ministre la route Diakhao Saloum Ndioum gent y' a onze villages entre Diakhao Saloum ak Mboumgente Yonk ñooñu ñu ngi bëgg nga jàpp leen bu baax a baax a baax monsieur le ministre laaru Malem Odar Daaru Minam Saloum village yu Serigne Mountakha parce que ci këyit moom mooy chef de village ba raaru Daaru Minam Malem Odar dañoo sonn ñun dem nañ fa le préfet bi mu fa le sous préfet bi ñu ko fay yóbbu mais dañoo réer sax ci àll parce que amul yoon bu baax monsieur le ministre laaru Touba Nabooji dëkk Serigne Moustapha Mohamed parce que boo demee nga ne Macky Sall Moussa sëñ Moustapha Mohamed donc mu ngi xaar la route Nabooji Touba la route euh, Touba Nabooji la route Taïf Gassane la route Taïf Gassane ñu ngi koy xaar la route Colobane Sadio la route Colobane Sadio monsieur le ministre. monsieur le ministre chemin de fer mais chemin de fer ñun Birkelane dañoo bokkoon ci dëkk yi xam ne chemin de fer moo di dundal ñun Birkelane dañoo bokkoon ci dëkk yoo xam ne dañoo compté woon ci chemin de fer.

lépp yow yaa ko war a def loolu xoolaat leen ko bu baax parce que warta mën a nekk ki la tooñ moom moo war a dem wuti huissier wuti gendarme ñu ñëw constaté bu ko defee ñu xool ne frais yëpp moom mu jël ko en charge en attendant mais yow ko at jëlaat en charge frais yi loolu a nekk donc a a baax a la prise en charge donc des chauffeurs chauffeurs Sénégal monsieur le ministre chauffeurs yi nañ amoo contrat amoo protection sociale amoo dara boo jëlee oto jàmbur boo demee Mali ñëw boo feebaree sax mu dàq la jël keneen

abu nu mbuga nga ta continuer a naxa nuun a ah, ndet yo nu mbuga nga aussi euh, manga a xena nder aussi ndet yo nu ndom na ndeta kon maa ngi leen di gërëm sant bu a